te bul diglu sax ay waxam ku dul moytu yi yatt kay daw bu wér akay muslu woona asaltus kareem te kët yett yi ñoo di murit dañuy muusu ittéema kuk taalu beem te kët ñoo ak max ba tey ci murit te lii doy na mboolem murit yépp ku bëggul dul yàlla ak raw bon na defi bayit cib xolam ak jibaam murit dëgg day sàmm cër sàmm xol du xoolee dem fiw jigéen nit ni kaam ku sàmmi cëram yépp sàmmub xolam du gis jenn lor ndax te génnul sangeem ku jóg tabbi dex war saxaarug ndoxam gu wér doo ko gis labbu génnul pëkéem murit boo fu gis nag pëkéemay ndigal bu cay jóg ni candax dexuk alkuteem ku génnul ndigal nag du gis ak mbugal ku xam aw ko awloo ay fereem waxal nag sa bopp ak sa waa kër bu wér ñu daw marsandiis ak jigéen ak pexeem ku am njëg na jëndi ku ñàkkit na muñ ba am lépp moo di xoolee ka te koo gis mu dem kët di xoolee ka yéem duwoo loolu leblab ni meŋ pexeem